والقلم وما يسطرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا أنت الذي علمت اللقمان الحكم وليهب المصطفى خير الشيم bokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew gannaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala dillu ci yonent yàlla muhammad sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal al alxalifatul am cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke yàlla na ko fi suñu borom bàyyi te mottali ay naalam ba fépp fu mu bëgg yóbbu liggéeyu maamam bi yàlla na ko fi yàlla àggale noonu la ñu nuyoo alxalifatul am muy sëriñ babacar si mansour di xalifa euh, général des tidiane di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal itam mboolem naal yi mu naal yàlla na ko yàlla àggale tam fekk ko fi te fekk ñu fi itam mbokk yi ñu ngi am ak yéen jotaay boo xam ne kuréelu yaatal mbindum alquran lañ ko séqal muy concours bu am solo boobu nga xam ne compagnie Alaaji Sëriñ sekk moo ko taxawal ñu war a séq ak yéen waxtaan wu ama am solo dalal ci ñi nga xam ne ñoo ëmb kuréel googu waaye laata loolu lañuy dem publicité incha allahu taala doo ko jikkaat ak yéen ci jotaay wal qalami wa yas تكفرون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 نعمة ربك بمجنون kon mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci jotaay bu am solo bi nga xam ne kuréelu yaatal mbindum alxuraan moom la leen amal ñu war a séq yéen waxtaan bu jëm ci concours boobu xam ngeen ne at mi ñu génn defuñu ko woon euh, méthode dañ ko xawoon a ndégani tuuti kon nag buñ koy yëkkatiwaat euh, dafay aajow ñu indi ci ay leeral lu taxoon euh, négandiku gi ak yu yees yi nga xam ne moo ci am te amu ci woon waaye laataa ñuy dugg ci waxtaan woowu yëpp nag dañuy bàyyi kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi dalal am nañ sëriñ Mahmoudane Dieng mi nga xam ne moo war a wax ci euh, communication organisation sëriñ Moustapha Diop Ndar ngeen xam ko di borom xam-xam di gëstukat di bindkat itam war a wax ci li nga xam ne mooy membre jury bi moom moo war a wax ci euh, jury bi incha allahu taala waaye am nañ fi itam Cheikh Mouhamadul Fadil Seck mi nga xam ne moo war a wax ci turu société bi ak ci turu euh, Alaaji Sëriñ Seck incha allah waaye ànd feek borom xam-xam itam di suñu mbokk suñu xarit sëriñ Mbàkke Sourang moom moo war a wax ci wàllu comité scientifique bi incha allah noonu la waxtaan bi war a tëddee waaye laataa ñuy dugg ci yëpp nag lañ leen di bàyyi ñu nuyoo Cheikh Moustapha ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa rahmatulah. Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di nuyu suñu kilifa diine yi ci réew mi ak suñu kilifa aada yi di nuyu waa daara ji ñëpp. jërëjëf sëriñ Moustapha ci nuyoo yu am solo yooyu sëriñ Mahmoudane ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Amar maa ngi lay ziar bu baax euh, di ziar bu baax itam mbokk yi nii bàyyi xel ci euh, plateforme ak bu mu mën a doon rek moo xam fu mu mën a seetaanee euh, ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di la di nuyu itam sëñ Moustapha di la bàyyi rek honneur nga présenté ñi si des waaye ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit. jërëjëf jërëjëf sëriñ Mahmoudane Cheikh Mamadou Fadil ñu bu baax a baax bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy euh, coordonné liggéey bi di wa rahmatullah. waaleykum salaam ngi lay nuyu di nuyu ñu ñu bi ñëpp sëñ Moustapha sëñ Mbacke sëñ Mahamadan ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp. jërëjëf sëñ Fallou ci nuyu am solo yooyu sëñ Mbacke Sourang ñu ngi lay wax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu bu baax te di leen. siyaar di siyaar nuyu ñu bokkal plateau bi Cheikh Mamadou Fadil eh, sëriñ Moustapha Diop Ndar sëriñ Mouhamadan ak sëriñ Omar ak mboolem ñi nga xam ñu ngi topp suñu seen yaatal mbind alxuraan karim. jërëjëf sëñ Mbacke Sourang nu nuyoo bu am solo boobu kon mbokk yi loolu mooy jotaay bi nga xam ne moom la ñu war a séq ak yéen xam naa sëñ Mahmoudan dañuy tàmbale ci yow mi nga xam ne yaa yor euh, communication waaye yor itam li nga te ku wax concours rek ñaar yooyu mënu cee ñàkk muy organisation ak communication ndax communication bi fu concours bi àgg moo ko fa àggale waaye bu fa àggee ba noppi itam ñu war ko organiser ba mu jaar yoon foofu foofu organisation ñëw ci ba ñu doon dikkal ci wàllu communication balaa ñuy ñëw ci organisation bi ana lan nga ñuy wax. waaw Seydou Amar maa ngi lay ziare waat baax di safar rek si nuyoo yi di nuyu kilifa ak euh, entreprise bi El Hadj Serigne Seck ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey boobu. Euh, comme ni nga ko waxee nag wax nga ko sànq bi ngay bi ngay def say introduction te mooy danoo defoon ak bër xam naa kilifa yi danañ si ñëwaat kon day baax nag suñ demee ba ba ba génn ci bër boobu wala jubluwaat liggéey bi ñu xool yan anam la ñuy amale yëgle boo xam ne mbooleem fu waay nit nekk ci Sénégal dina mën a yëg ne liggéey bi dooraan la loolu bi mu amee nag euh, tàmbali nan benn li ñuy wax euh, bànn annonce wax ne mi ngi jàll ci yenn réseaux sociaux yi mi ngi jàll ci yenn chaîne chaîne chaîne YouTube yi en particulièrement ak sax yenn rajo yi ngir nu yëgal fépp foo xam ne nit nekk na fi Sénégal que ne eh, liggéey bi commencé na kon communiqué bi am na ñoo xam ne commencé nañ ko comme ni ma ko waxee waaye bi ci ëpp doole mi ngi war a door euh, nekk suba di 16 août donc day commencé 16 août ba 16 septembre incha allah ci Sénégal bi yëpp bu ko defee nu yëgal ñëpp rek ne liggéey bi commencé na te nam daan doxee rek lay doxee foofu daal lañ toll ci wàllum communication sëñ Omar jërëjëf sëriñ Mahmoudane foofu ngeen toll ci wàllu communication waaye ñi nga xam ne itam dañoo bëgg a ci concours am na benn euh, communication bu ngeen waajal pour ñoom ku ci bëgg a bokk ana fan lay mën a jaar ba bokk ci concours bi. waaw loolu comme ni nga ko baaxoon di def rek ku ci bëgg bokk moom li ngay def mooy il faut nga nekk euh, koo xam ne say at dafa dafa dafa àggagul 40 comme ni nga ko waxee ci bande annonce bi jàll léegi nga bind itam comme ni ko bande annonce bi waxee xët ci alquran boo ko bindee def si sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone li ngay daal def mooy nga yóbbu ko ci point C3S bi la gën a jege Sénégal parce que may fàttali ne fu bëree baree bëri ci Sénégal pour pour bañ a wax sax fépp ci Sénégal euh, C3S am na fa foo xam ne xaj na boo fa demee da nga fa gis C3 boutique boo ko mën a yóbbu bu dee nag da ngaa nekk foo ki la gën a jege ci waa rabita bi wala ci waa euh, fédération bi ba defee boo ko joxee sam mbind danañ fexe ba boole ko ci collect yi incha allah andi ko jox ko kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey boobu muy waa commission scientifique ñu def seen liggéey bi nga xam ne moo ci war a topp. jërëjëf mu doon ci leeral am solo yooyu ba tam ci yu yi ubbi ngeen benn plateforme ci internet yi muy jumtukaay yu yees yi. ku ci bëgg a bokk itam mën na faa jaar. waaw waaw comme ni mu ko waxee ci euh, ban annonce bi rek am na benn plateforme bu nekk si internet bi boo xam ne mooy 3W point candidat point yaatal mbind point sn donc foofu tamit boo fa jaaree nekk daaw lañ ko mettre en en place amoon nañ ci ay inscrits ren tamit noonu lay demee képp koo xam ne mën ngaa jëfandikoo jumtuwaay yu xarañ yooyu nu ni ñu ko tuddee yu yees yu xarañ yi. Euh, nga man faa jaar ak sa mbind mën nga ko scanner boo bindee ba pare jaar ci plateforme boobu euh, def fa sa mbind topp tegtali après dana la joxe ay orientation ba sa dépôt mën a jàll si si mbootaay gi incha allah. jërëjëf jërëjëf Serigne Mahmoudane Dieng nga xam ne mooy wax ci turu mooy wax ci turu euh, communication waaye wax ci itam organisation Serigne Mahmoudane leeral yi am na solo lool ñu jublu ci Serigne Moustapha Diop Ndar nga xam ne moo jiite membre jury yi Serigne Moustapha concours bu mel nii. concours bu mel ni nga xam ne tey dafa yaatu national la réew mi fu ne nit dafa jógee di bokk xanaa saytu ko ci wàllu jury war naa jafe de. waaw jafe na wante lu jafe it nit a koy def alhamdulilahi dëkk bi moom am na fi ñu mën alxuraan ci mokkal ak ci bind ñooñu nga xam nag wattu nañu alxuraan te jaar ci bind ko amaana sax ay yoon ñoom lañu jël ci ñoom ab kuréel bu ñu tànn ñooy jury bi ñooy àtte liggéey bi nga xam ne boole nañ xam alxuraan ci mokk xam ko it ci wàllu mbind mu rafet nga xam ne ay commission lañ leen def ñetti commission commission bu ne da nga seet mbind miñ la jox mboolem loo ci seetlu nga génne ko euh, jox jox ko beneen commission yi moom it mu seet ko ba mujj ci commission boo xam ne moom li muy seet mooy bind mu rafet waaye li ma ta fàttali foofu mooy euh, bu ñuy seet mbind mi ñu ngi koy seet ci euh, ñeenti waar ñeenti wàll wàll genn gi mooy wàlluk mokkal gi des mooy mooy mu dëppoo ak mbindum rasmu osmaan yi bañ a wuuteeg moom fenn bi des mooy sikki mbind ndax ci nattu yi nattukaay yi am na lu ñu tuddee sikki mbind sikki mbind yooyu bañ cee nekk bi ko ñeenteel mooy nag ñu xool mbind mi daal ndax rafet na wala kooku it mbooloo koy def dañ ci waxtaan waaw euh, su ma gàttalee may wax ni am na téeméeri poñ téeméeri poñ yoo xam moom day laaj candidat bu nekk téeméer yooyu wàllu mokkal ki mooy alxuraan ji wiir ji nga xam ne amut yàq amut jël kooku am na ci ñaar fukk ak juróom ñaar fukki poñ ak juróom ci téeméer bi ñëw ci wàllu dëppoo ak mbindum rasmul osmaani yi bañ a wuuteeg moom foofu fi fenn kooku am na ci moom it vingt cinq soo boolee kon wattu gi ak dëppoo ko rasmul osmaani bi vingt cinq vingt cinq mooy cinquante yeneen cinquante yi des sikki mbind nga xam ni dañuy sàkku ci euh, kii def concours na ko moytandiku moom it am na ci trente trente points yoo xam euh, mucc ci sikki mbind moo ko moom mu des vingt ñu jagleel ko mbind mu rafet mu rafet moo tax kii bind na bàyyi xel wet yooyu yëpp sàmmonteeg moom na mbind mi wir bu mu am yàq bu mu am jëll bu mu am runge waaye it na dëppoo ak reegalu mbindum Ousmane bu ñu wuteeg moom ndax kat foo xam ne fi la wuute na ak moom rek am na point yu ñu ko war a génneel ci sang yooyu mu war a am waaw kooku lu ci am solo la euh, su ko defee nag euh, it kii def concours na xelam dal lii secret bu mat sëkk kii lay doxee ñi nga xam ne ñooy ne ci jury bi amu ci koo xam ne da nga am kenn ci njaboot ñi concours doo ci am kenn duñ doon sab dong duñ doon duñ doon leneen nga xam ne mboolem chaîne bi secret lay doon ba bis bi ñuy génn résultat yi amaan na sax ñi nga xam ne ñoo ne ci ci ñoo ne ci jury bi mën nañoo bañ a xam sax kan moo jël première. kooku it ñu dalal xelal xelu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci concours bi waaw. jërëjëf sëriñ euh, Moustapha Diop Ndar suñu beneen laaj itam jëm ci euh, jury bi ñi nga xam ne dañ ci bokk te euh, amaana jàng nañ ba noppi waaye seenu mbind moom taxu koo demee ni mu demee ndax bind ay catégorie la boo xoolee zone sud bi ak ñëw fu mel ni Kajoor Bawal bokkuñu bind bi kuréel yu wute yooyu ak capacité yu yu wute yooyu nan nga leen fexe ba gérer leen boole leen loolu moo tax sax sax euh, euh, kuréel wu yaatal mbindum alxuraan da leen a séparé woon ak digg réew mi fu mu ne ku xam ne bawal dañoo fonk mbind lool ci xereñ ak rafet la naka jëkk yëkkit euh, région yi ci des it fonk nañ mbind waaye rafet ci boppam moom moo wuute moo tax ñoom. ñu jàkkale leen seen concours bopp mooy concours régional yoo xam ne moom ñoom ñoo koy def ci seen biir bopp ba ka ca jël première te ñoom ñoo koy atte seen jury foofa lay bokk ñooy wax foofa kan moo fa jël première kooka ñu jox ko lauréat waaw waaye fii it euh, di digg réew mi moom it seen concours bopp lañ am boo xam ne moom wax national bi ñi des yëpp it ku ci bëgg a bokk mën nga ñëw bokk ci nag mën nga ñëw bokk ci waaw. jërëjëf sëriñ Moustapha Diop Ndar docteur ci waxtaan bu am solo boobu ak leeral yu am solo yooyu. jëm ci wàllu jury bi kon ñu jublu ci Serigne Mbacke Sourang suñu xarit di borom xam-xam ngeen xam ko chaîne bi yaakaar naa mboolem ñu koy seetaan émission boobu di yaru ak yare moom moo ko fi def ànd ceeg borom xam-xam Serigne Makhtar Kebe yaakaar naa mboolem ñuy si ñu suivre seen yaatal mbirum alxuraan miin nañ ko. Serigne Mbacke nga toogal fi comité scientifique di nuyu itam Serigne Sam Mbacke bu Daaru Salaam Serigne Guédé ñu xam ne kuréel gi chaîne bu yaatoo yaatu la. Euh, mbooloo mii ngeen gis tey toog fii ñoo fi toog waaye lu bare ngi ci ginnaaw loo xam ne benn objectif lañu am mooy concur bi jëm ca kanam àgg foo xam ne fu kawe njort la sëñ Mbàkke ñu ñëw ak yow ci comité scientifique bi ren daaw xam nañ ne concours bi amul waaye ren bi mu amee itam am na fu bari yu bari yu ngeen def yu am solo mooy génn ci réew mi dem fu mel ni Touba ñi nga xam ne yàlla dogal na dañuy bokk ci concours bi ngeen tàggat leen ci wàllu mbind yóbbu fa ay borom yi ak téere yi nga xam ne moo nekk suñu kanam muy juzu amma bi ak juzu tabaaraka di ngeen am yeneen yu ngeen di waajal sëñ Mbàkke loolu boo ci doon dikkal ana ñuy wax. Euh, waaw sëñ Omar ñu ngi lay jaajëfal bu baax di siyaar bu baax sëñ Moustapha Diop Ndar ci leeral yoo am solo yi nga xam leeral na ci wàllu euh, jury bi. mu laal point bu am solo boo xam sax léeg-léeg mbokk yi ñu ko faral di laaj maanaam bu fekkee ni da yor daara am ku fa jóge te yow nga bokk ci jury bi. est-ce que loolu doon di sikki saak waaye gis nga leeral yu am solo yi si def nga xam naka jekk bu fekkee même man bu fekkoon damaa yor daara am ku génne sama daara jour boobu du may bu ñuy àtt du ma si bokk nga xam ne le temps que waa mi ngi avancé année boobu mën naa bañ a bokk si concours bi nga xam ne pour nga duggaat kooku dañ koy éliminer pour lan sàmmoonte ak euh, ak wér gi ñu koy siyaar bu baax a baax eh, waaw li nga wax lu am solo ndax moo ab liggéey bu fekkee ni da ngay liggéey di tegale la léeg war nga mën a taxaw def ak bër xool ba xam liggéey bi noo koy yokkee pour nga mën a am li nga bëgg ndax bu fekkee yaa ngi dox rek di dem euh, amaana li nga manqué doo ko gaaw a jot amaana mën ngay dox itam waaye fi nga jëm mën nga fa bañ a gaaw a àgg loolu moo loolu moo waral bi ñu dalloo am at xalaat yu bare bari itam euh, judduwaat bokk na ci xalaat yooyu euh, dawra bi nga xamante si ni organisé woon nañ ko ci biñ tabaskee fee si Touba ci taxawaayu sëriñ Moustapha Diom daal Cheikh Amadou Fadil sëriñ Xaadim ak ñoom sëriñ sa Mbacké sëriñ Saliou Sall ak mboolem ñi ko seqoon muy dawra boo xam ne bi mu sottee bi mu àggee mboolem ñi nga xamante si nii tayoo woon nañ ko te daal liggéey yëg na ni lii kat ëppoon naa bañ a def ndax am na si ñoo xam jàppoon nañ ne ñu ngi si niveau bi ko gën a kawe waaye ndeke ñu ngi doon bind waaye am na lu am na lu manqué woon te loolu li nga ci li nga ciy dégg rek mooy xam xam-xam dañ koy jàng boo ko jàngee ba noppi nag si nga ko mën a teg si table discuter si ak ku ne waaye amaana mën nga koo man waaye boo ko jàngul mën nga am problème parce que ab xale fi mu toll mën nga koo tàggat mu beqi bind kaamil du am fóot waaye tey bu ngeen toogoon ngeen dugg si débat amaana loo wax du ko mën a tontu wala bu ko tontoo doon di doon di doon di doon di doon di xam-xam bu leer kon da gis ni dawra bi am gi solo foo ko foo ko foo ko natt rek eh, passé na ko mbokk yit ñu ngi sàkku mu gën a eh, jëm kanam ndax gis nañ ni ak yokkute la eh, waaye ak dellu ginnaaw amu liggéey bi itam boo xoolee am gi solo foo ko natt tam passé na ko ndax maanaam bokk na si yitte yi mooy ku ne xam ne Sénégal kenn rawu leen si mokkal alxuraan ci man koo jàng tajwid ko waaye nu koy bind itam foog naa boo xoolee si àddina bi ni ñu koy bindee ku ñu koy bindee amul te pourtant boo demee fi ñu koy gaaralee si àddina bi amaana sax doo fa gis euh, Sénégal loolu nag bokk na li tax maanaam Yaatal Mbindum Alxuraan juddu commission scientifique di si liggéey ànd ko ak ak société bi C3S ngir bëgg fu ñuy gaarale te alxuraan si wàllu bind Sénégal nekk si ci première. loolu nag li koy li koy li ñu si mën a dimbali mooy organiser ay kuréel yu mel nii ñu fexe ba ñi siy bokk. ñu du leen tàggat di leen xamal norm muy bind ñoo xam li bind di bañ ak lii boo ko defee fan nga ko teg ba bu ëllëgee nga mën a am loo xam ne boo ko gaaralee si àddina bi eh, kenn du si kenn du kenn du ko sikki sàkk nga xam ne bokk na si njariñ yooyu itam ren jii boo xoolee lu toll si mille cent dix ci ay jus yoo am ma eh, concours yaatal mbind alxuraan génne na ko tasaare ko si ay gox yu yu yu fasantiku yoo xam ne ñasa jot xam nañ dëgg-dëgg lii ab liggéey la boo xam ne ëppoon naa euh, bañ a def nga xam ne obligé wuñ leen ni leen fokk da di bind nii waaye dañ leen a bëgg a wane ne rek nit ki fa mu nekk war naa mën a gis ni jàng alxuraan di ko tajwid ci façon bu rafet dafa war a ànd ak bind alxuraan ci façon bi ñu ko war a binde ndax ñoom naa dañoo lëkkaloo ba ci dem bàyyi moroom ji rek eh, mën naa jur ak manque waaye yëmuñu si téere yooyu itam dafa nañ lu mel ne ay base yoo xam àgg na ci 410 bâche yoo xam dañ see bind Muhammad Rasulullah def ci xuruful hija ngir nga xam ne boo ko wekkee ci xalqa bi xale bi toujours bëtam bi si tegee dañuy gis ne même boo ko soññiwul mu jàng sax dañuy gis ne day jël kayit di jéem a éviter lettre bi di ko di ko di ko xam mu nekk loo xam lu am lu am lu am impact la euh, sëñ Omar. jërëjëf sëriñ Mbacke Sourang ci leeral yu am solo yooyu jëm ci comité scientifique bi xam naa suñu ñaareelu laaj rek mooy euh, beneen perspective boo xam ne am nañ comme information. nii ngeen waajalee juzu am ma waajalee ko tabaraka defee ko noonu bâche yi yéen a ngi waajal leneen mu jëm ci juzu yaasin boo xam ne ni ngeen tasee tabaraka nu ngeen ko war a defee yooyu yan leeral nga ci. waaw yooyu itam boo xoolee mbir mu ne da yéeg. parce que yitte ji dëgg-dëgg mooy teg ab kaamil boo xam ne dañ koy dañ koy mën a saytu ni ñu ko war a saytoo ba teg ko ni ngay tuddee ay réew ñooy am ay kaamil bu ñëpp xam yaatal mbir yoo xam dafa am pas-pasu Sénégal ñu mën a génne ab kaamil lii mooy mushaf Sénégal yi. boo xam ne mboolem norme yi bind daf say daf say daf say daf say daf say aju moo tax nga gis yàlla tamit alxuraan ubbeeku fu nit am xam-xam ci wàllu rasmu am xam-xam ci wàllu dabtu ñu ngi lay consulter di waxtaan ngir bëgg a yaatal ndax nit boo nee yaatal euh, amatoo sañ-sañ ci ci ci xatal moo tax fu xam-xam bi nekk ñu ngi koy jël pour gaaral lu toll noonu moo boo gisee ñu tàmmulee ci jusu am ma yooyu ko ba mel ni mu war a mel ren incha allah rabbi ñu ngi ci jusu yaasin boo xam ne tàmbalee yaasin ba minal jinnati wa nas incha allah bi ñu ngi si liggéey te liggéey bi mi ngi avancé ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala mu bañ am benn gàllankoor ba bu déwénee bu cérémonie bi am ñu mën koo gaaralaale ñëpp ñëpp ñëpp gis ko. jërëjëf Serigne Mbacke Sourang bu déwén bu cérémonie bi am ñu mën koo gaaral ñëpp yàlla ñu fi yàlla bàyyi bañ fekkee ko euh, yàlla itam gën a yokk société bi nga xam ne moom moo koy taxawee Cheikh Mamadou Fadil Seck moom lañu war a jox mu war a jox war a wax ci turu société bi waaye war a wax ci turu borom société bi muy El Hadj Serigne Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér ku ne xam na ne concours bi nekkul lu ndaw te it concours bu bari ay charge la waaye fala xarwa yéemi kéemaay du ci am waaye ku xam fi mu bàyyi ko xam ne lii rek la mën a def mënta def lu ko gën Cheikh Modou Fadil ngeen indi loolu yees ci concours bi muy lu bees loo xam ne mbégte la ci waa daara mooy yokk lañ daan am lépp ngir bëgg mu jëm kanam ku yokkul danga ngaa wàññi te yokk ngeen lu am solo yokk yu bees yooyu am ci mu yu yees te amu ci woon te li ko waral mooy toog biñ toog xool fan lañ mën a nan lañ mën a séqee jéego ngir konk bi dem kanam loolu boo ñu ci doon dikkal ana loo ñuy wax. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ Omar ma nuyu kilifa yi diine yi di ko ci sëñ Mountakha xalifa général des mourides ko tuddee du sëñ Ababacar Mansour mu doy. ñoo leen nuyu leen siyaare ci tur yaatal mbindum alxuraan ak fépp ab jullit nekk ñu nuyu kilifa yi aada yi ko tàmbali ci njiitalu réew mi muy président eh, Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre ñoo nuyu nuyu fépp ab jullit nekk seen daara yi ndax liggéey bi seen liggéey la ñu ñëw ci laaj bi nga laaj ndax mbind mi mille de lañ lañ doon dallu bëgg ko soppi di ko xoolaat ba xam ndax loo doxal lu mat eh, juróomi at da nga taxaw xoolaat ba xam nooy jógewaat taxoon ñu ne nañ nañ nañ soppi doxin wi ci jël at ndax yooyu dina am yooyu yooyu ci mën a génn ko sa ginnaaw am yooyu ci mën a defaat ndax bu ñu ko defee itam ci lañ ñëw eh, ñu soppi ci eh, liñ daan neexal yi ki jiitu sept millions cinq cent ki ci topp set million ki ki ci toppaat di troisième bi am am six millions cinq cent loolu ci liñ liggéey ci dall googu xoolaat ko ci la bokk ak yii fi sëñ sëñ indi muy formation bi ñu defal sëñ daara yi yooyu itam xatoon na ba xaju fi woon loolu ci soppe yi la bokk ak yeneen yoo xam ne si ci biir liggéey bi la nekk moom du nekk lu ñu mën détaillé waaye lu ñu ci dox rek lañu gis na lii am na soppat te taxawaay boobu ñu taxawoon xoolaat moo ko indi kon nag xam nañ ne ñu ngi bëgg a jógaat tàmbaliwaat muy suba la sees incha allah ci lañ ñuy tàmbali nag kan day mën a kon ñoo ngi woo fépp daara nekk rek te xam ne liggéey bi jógati na te ñoom rek ñoo ko tax a jóg ndax bu ñu nee bind moom dañaan daara sëriñ di tax mu am xalaat bi xam na ne daara mënta ñàkk bind naka jekk mbind mi ngi doon am waaye xamoon nañ ne amoon ak des ndax xaraayu jamono yi taxoon mu xaw a manqué ci daara yi taxoon moom mu jóg ne nañ ko dund laat moo tax kon nag fépp daara nekk rek ci réew mi ñu ngi lay woo taxam liggéey bi sab liggéey la yow lañ ci nekkal. jërëjëf Cheikh Mamadou Fadil ci leeral yu am solo yooyu muy ay muy mir yu yees yoo xam ne dafa ñëw ci concours bi waaye gën koo yokk gën koo fullaal gën koo gën koo gën a joxaat solo di wan rek ne waa daara concours bi seen concours la. concours yi fi am am na solo ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax lépp ndamal alxuraan la. waaye bu mel ni bii moom dafa dafa dafa extraordinaire dafa dafa dafa laaj yu bari ndax du da nga du caaga ne da ngay mokkal rek bokk ci di nga mokkal yem ci doo ci yem waaye di nga mën a bind alxuraan tam sàmmonteeg yi nga xam ne kuy bind mënta ñàkk sàmmonteeg moom xam naa dañuy ñëw ci sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne wàllu communication bi nga xam ne ñoom li ci ëpp solo ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yor te ku ne xam na ne lépp lu nar a dem rawatina lu mel ni communication am na ci pàcc bu rëy rëy rëy rëy sëñ Mahmoudan ci wàllu communication am na fu ngeen ci yemoon ren fan ngeen jàpp ne ngeen ko war a yóbbu mu gën a sori pour fu mu àggul woon mu àgg fa. waaw Seydina Omar xam naa laataa loolu nga may ma rek ma euh, am lu ma leeral ci Baye Fallou di ko féliciter d'abord parce que kenn réy la woon mbir ne C3S daara ju am solo jama yore fële ca Bayti Seck moom Baye Fallou mii de sa yore liggéey bu am solo mën nañu wax ne lépp ci loxoom la aju yàlla def nag euh, édition bi nu génn ñoom ren ñu am ci ay Euh, ñu ko si félicité di rafetlu liggéey boobu ba ci li ci mujj tamit ndax xam nañ ne ñoom dañoo yor foofu école nag CFA ñu ko doon def man na noo wax ni lim bu am am solo pourcentage bu am am solo génn na ca euh, te loolu la ko jiitu formation ban njëkk def si ñoom muy alquran dañ njëkk a jàng kon loolu lu am solo lu mat a itam ma ko ci félicité di ko félicité itam jëwriñ ji nga xam ne euh, moo leen jiita si loolu muy alaaji Serigne Seck PDG bu C3S mais la comme ni nga ko waxee communication bi moom euh, lépp loo xam ne année bu bu weesu rek fépp foo xam ne dañ faa gis ay ay ay ay manquement dañuy essayer année ba ca topp ñu jëm ko corriger ba li ci jiitu mooy tournée bi nga xam ne moom la euh, sëñ Mbacke wax sànq ñu defoon ko côté sud bi euh, yaakaar naa def nañ ci communication bi am am solo parce que war nañ ci raison yooyu di Matam région bu Ziguinchor bu Kolda Sédhiou ak Tamba wax naa ko. ak euh, Kolda en tout cas yooyu raison yëpp nga xam ne ñoom fa lañ tàmmoo def euh, concours régional bi sëñ bi sëriñ euh, Moustapha Diop tudd léegi war nañ fa ak communication bu am am solo communication dara jiituwut lu mooy li nga xam ne mooy mbind yi nga xam ne dañ ko bind muy jëmmal liggéey bi yaatal bindam alquran lu fexe ba mu tasaaroo ci Sénégal wax raison yooyu ñëwaat fi nga xam ne moom lañ baaxoo woon di amal concours bi muy côté Diourbel beeg euh, Saint-Louis ak yooyu donc da wax ne pratiquement euh, concours bi tasaaroon na biir Sénégal loolu ay jéego yu am am solo yu ñu si def lim bi ñu fa jot a joxe si ay téere si Mbàkke lim na ko léegi muy junni ak téeméer ak fukki téere yoo xam ne dañ ko def ci mool yi wuute nag mool yoo xam ne xam nga téere bi comme bu melee nii ni ni ni koy wanee noonu day day mel day mel ne boo koy utiliser comme ni ñu koy wanee noonu ci écran bi day mel ne soo koy utiliser kii bi day day gaaw a yàqu sàmm gi du yà du yàgg ndax ay kayit la waaye dafa amaat beneen forme beneen version bu ñu ci defar mooy bii ñuy wanee mooy version boo xam ne dañ koo plastifié li nga xam ne dañ koo plastifié moom ndox du ko yàq te day mën a perdurer day day yàgg lool loolu nag lañ fexe ba am tasaaroo ci ci ci ci ci dëkk bi euh, xam naa sëñ Moussa dana si ñëwaat itam waaye yëmunu rek si ci jàngu daara yi waaye liggéey bu mag bee nga xam ne sëñ Mountakha da koo def ci Touba ñoom ñii xam naa sëñ Moussa dana si ñëwaat waa waa waa scientifique dem nañ fa ànd ak ñoom ci liggéey boobu dana ñëwaat ci taxawaay boobu nu mu demee woon loolu lépp day yoo xam ne fépp foo xam ne da nga fay soxla woo visibilité da nga ko fay da nga fay amal ba ji bunj bii nag nga xam ne mooy door suba muy communication bi jëm ci appel à la candidature bi ñu defee ko ci Euh, anam boo xam ne euh, bu stratégique la parce que ku wax suba xam ne ñu ngi si biir safar mu war a door kon suba communication bu dugg si biir safar dana am porté xaj na bu doxee itam nag ba le 16 septembre day xaw a jege lool gàmm ga diggante màggal ak gàmm jàpp nañ ne point stratégique la parce que nit ñëpp dañuy dañuy xool télé yi déglu rajo yi ak yu mel noonu donc ñu ne pourquoi pas ñu dugal foofu suñu communication jëm ci concours bi nga xam ne tout juste après rek dañuy daal dem ci li nga xam ne mooy dépôt candidature yi war a commencer le 16 septembre incha allahu rabbi dépôt candidature yi war a tamaale le 16 xam naa 16 septembre duñ la bàyyi buñ jugee foofu ci 16 septembre yan programme ak yan procédure waaw comme nañ ko daan defee rek à chaque fois bu ñu defee euh, liggéey bi damay wax ne foofu la yërmaane ji nag di commencé si jëwriñ yi ndax foofu amatul nopp noppalu moom chaîne dañuy enchaîner rek di dem ndax bu ñu si jógee le 16 septembre dañuy daal def collecte bi collecte bi li nekkoon waaw li nekkoon ci boutique C3S nekk Sénégal yëpp waaye li kenn benn benn rabita yi euh, dajale woon waa rabita yi wala waa fédération bi dajale woon ci ay kayit ñu jokkoo ak ñoom xool nu ñuy defee collecte bi su nga defee itam waa sud bi dañ fa am benn représentant boo xam ne moom moo ngi fay def liggéey bu am solo muy euh, sëriñ Ousmane Dia koy nuyu de passage mooy ku farlu ci liggéey bi moom côté sud boobu ak maatam moom mooy dajalee la fa nekk lépp. parce que si fàttali ñoom dañ daan leen euh, jox possibilité ñu toog sur def seen dépouillement sur au niveau local ci côté boobu côté sud bi def fa seen présélection def fa seen concours ren nag soppi tey euh, sëñ Moussa ñëw na si sànq. mooy ñooñ bu ñu dajalewaatee ba pare bii yoon dañ koy indi national léegi kayit yëpp la ñuy léegi def déploiement bi au niveau national baax baaxa woon koo def euh, Touba at yi jàll at yi jàll xaj na bii yoon kilifa yi danañ xool ban ban ban ban ban place lañ koy defee waat waaye at yi jàll yëpp Touba lañ ko doon defee nga defee bu ñu defee déploiement boobu nag mooy phase bu njëkk bi après dépôt yi euh, loolu mi ngi war a doon le le le le 14 novembre incha allah. bu ñu jógee ci déploiement bi le 14 novembre dañuy tànn ci ñooñu nag ñu nga xam ne ñooy war a dem defi euh, li ñuy wax présélection parce que sëñ Omar xam naa suñu mbàkk dana si ñëwaat ñoom danoo yeewu waa macha allah waa scientifique dañuy bañ am Omar euh, Sylla rek toog fee jox ko ko ku mën a bind mu bindal ko. déposé bu ñëwee mu jàll na ko yow jàll nga waaye ngir xam ba xam est que kii moo bindoon dëgg-dëgg li tax nu nu retenir ko ci présélectionné yi dañ leen woowaat ñoom 40 yëpp bu leen woowee. dañ tuddee pré présélection bi nga xam ne moo war a am euh, le le 4 décembre après présélection boobu nag danay jël si 40 yooyu nga xam ne moom lañ jëloon tànnaat ci ñoom 20 bayi 20 yi retenir 20 ñooñu ñooy dem final nga defee mooy saytu bi nga xam ne moom la sëñ Moussa doon wax ni leen di saytoo ba génnee ci ñi nga xam ne ñooy doon lauréat yi tudd léegi Baye Fall yi itam tudd lauréat yi li nga xam ne moom lañ leen dollil ndax kilifa gi euh, day def at mu jot rek mu xool naka lay dollee euh, xaalis bi mu leen di jox te mooy prix yi ren ñetti lauréat yooyu jiitu incha allah ci niveau national ñu war leen a jox ay neexal yu toll si 7 millions 500 ki jiitu comme ni mu ko waxee léegi ki si topp am six millions cinq cent sëñ Omar loolu mooy procédure yi nga xam ne moo ci topp si loolu nag li ma mujj a wax si cérémonie bi leen koy nga xam ne mois de mars lay am insha allah le 14 mars insha allah moom am ci weeru mars insha allah 2025 bu soobee yàlla ñu ñaan naa ko ci nañ ko fekkee ak jàmm te kenn bañ a manqué ci barke alquranul karim xam naa ñu jox sëriñ Moustapha Diop Ndar mu ñëw ci jury bi sëriñ Moustapha euh, ñu ngi ci woote appel suba la appel bi nga xam ne moom la compagnie bi di def ngir woo ñi bëgg a bokk ci concours bi nga fàttaliwaat ñi bëgg a ñëw ngir ñu bañ a juum bañ a jaawale ki bëgg a bokk am na charte yu ko tënk ngir mu bokk charte yooyu buñ ci doon ñëwal fàttaliwaat leen ko yan ak yan lay doon. waaw jërëjëf Cheikh Omar euh, charte bi njëkk mooy na wattu alxuraan na ko mën a bind yi mbind mu rafet ndax nit mën a wattu te du mën a bind. rafet nag des ci wuute waaye moom na gëm na rafet na rek su dikkee fii ñu koy seete nag lañ koy natte ak i moroomam atte ko kon na wattu alxuraan na mën a bind mbind mu rafet dañ daan dox sax di wax ne na ko bind ci warsh gannaaw warsh lañuy ñuy jàng ah kay mën naa kuy jàng xafs it mën naa bind kuy bind warsh mën naa bind kuy bind xafs mën naa bind na ko bindut ci mbindum réew mi mbindum réew mi mbindum local bi ku mënoon a bind di bind mbindum arab kooku wutal guñ ko ay nattukaayam moo tax kon na bind ci mbindum réew mi ci mbindum réew mi liñ ci dolli waatit mooy dañ daan ubbi ku bëgg a bokk ku ne bokk dañoo mujj wax ne nag nañ ko ñamale ci ñeent fukki at candidat daan mu ko weesu te yaakaar naa loolu waar wu yaatu la ndax Sénégal moom ñi fi am ñeent fukki at <laughs> ak ñi ko yées bari dañu kon konk bi xatut waaye lii fi ma bëgg ñëwaat ci sëñ Mahamadan junj ko mooy ki dikk di bokk ki dem ba nga xam dañ ko sélectionné ñaar fukk yooyu ñu war a def concours nu koy defee ku ñëw ku nekk bu la neexee nga indi sa xalima sa daa maanaam këyit gi ngay binde nga tànn ko ndax dañuy bañ nit di wax ni man xalima giñ ma fi jox wala daa ji wala këyit wi miinuma ko kon kuy dikk mën nga andi sa xalima bopp sa daay yi bopp sa këyitu bopp teewul nag danga nga ko fekk da nga fekk daa fekk fi xalifa fekk fi ay bikki yu mën a maas ne boo boo tànnee it ñu jox la ci yooyu ah kii bokkit bu dikkee këyitu kese lay yor ak daa toog fee bu waxtu wi jotee ñu jox ko envelopp enveloppe boo xam sax duñ ko ko jox moo ñëw tànn ko mu ñëw ji enveloppe envelop bi mu taseel su toog fee su waxtu jotee ñu ne bismillah mu ubbi enveloppe bi lam cay fekk mooy da fekk ñaari baati alxuraan wala ñett ñu ne ko tàmbaleel ci baat bii ngay bind ba ci baat bii kon dañ ko jox ab tàmbali akub yemu nga xam nag euh, loolu moom euh, sans ak fu mën a féet ci alxuraan diggante boobu nag lañuy sàkku ci moom boo ko dee seet dina mat suma nag lu topp jëm robo da koy bopp nag li ñuy wax bopp nga xam ne dañuy aaye ko yor portable dañuy aaye ko yor mel nu mbind lu niru am mbind kenn du wax ak kenn li ne sa bopp daal nga yëkk ci këyit wi ñu di ci seet nag di ma ko waxee léegi ak mokk ak ndax dëppoo nag rasmul osmaani ndax mucc na ci euh, ayi bi mbind ak it ndax rafet na kon noonu lay demee te kon ak maandoo ngi foofa goo xam ne lu ci waay dal rek ñu xam ne euh, noonu la demee. jërëjëf sëriñ Moustapha jërëjëf sëriñ Moustapha Diop Ndar di borom xam-xam ci leeral yu am solo yi nga xam ne leeral na ko kon jàpp naa ne képp ku bëgg bokk ci concours bi ak foo mën a ne ci réew mi rek yaakaar naa waratoo am information lu may def ba bokk ci ak su ma ci bëggee bokk fan lay jaar yooyu moom leer na nañ sëriñ Moustapha Diop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax baax ci leeral yu am solo yooyu di nuyu itam yàlla imaam sëriñ Khadim Ndiaye mi nga xam ne moo jiite comité scientifique bi sëriñ euh, Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud su ma limee mën naa jum waaye mbooleem ku bokk ci comité yaatal mbindum alxuraan rek soxna maam Awa Dem fàttewuñ la ca Poroxaan nga xam ne moo jiite kuréelu jigéen ñi di jàmbaar ci kuréel gi bi ñu ko tàmbalee ba tey mu ànd kook ñun ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal fàttewuñ kenn ñu war a dugg ci deuxième partie publicité bi nag doog ñëwaat incha allah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 ak fer forgé bi ci modèle yu yéeme am nay porte ak i rideau métallique ngir seen kaarange garage walla magasin C3S am machine ak i outillage baax am na ay xeetu verre bu ngeen soxla ay plexiglas PVC ngir seen création wala décoration am na ay panneau composite alucobond ak ay profilé mur rideau ngir yokk taaru seeni façade bu dee décoration C3S dina leen defaral seeni bureau wala seeni kër ci noo leen ko bëggee ak immobilier inox verre wala alucobon ci ay design ngu rafet ngir gën a jege clients yi ak dab seen bànneex C3S gën a yaatal toogaayam ci ndakaaru ak ci biir réew mi ndax c 3 am na ca Yaraax Soprim Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. kon euh, dañuy jàkkaarloog Serigne Mbacké Sourang bi nga xam ne moo fi teewal comité scientifique bi sëñ Mbacké mbind day euh, mënees naa wax ne ci lislaam lu am cosaan la boo ñu doon dikkal ci comité scientifique euh, mooy lajna ilmiya bi comité scientifique bi. importance su mbind ci diine importance u mbind ci lislaam buñ ci doon dikkal ci minute ju néew rek loo ñu wax. Eh, waaw awalan maa ngi gën a siyaar baax si Moustapha si wàll gi mu ñëw léegi ndax dafa laal ay points yoo xam ne eh, ñu bari si ñi bokk si concours bi dañ koy laaj te itam def na si ay ay ay leeral yu am solo waaye itam di leen soññ si lu bari ay sew sew la pour gën a maîtriser loolu lépp nag. dañ leen di yabal dañu dem gëstu euh, contre yaatal mbindu alxuraan pour dawra bi nga xam doon na am parce que foofu li ñu si yi war a wattandiku yëpp ci maa ayir yi lu si nekk dikk nañ ci point par point parce que loolu dana dimbali parce que bari na si ñoo xam ne fekk woon xañ na dawra bi waaye buñ ko toppee dana leen mën a dimbali ci ci ci ci ci ci ci ci ñu xam yan lañ war a sàmmanteel ak yi ñu warta sàmmanteel ndax am na si mbokk yoo xam ne dañoo wax ne ñun day bokkoon nañ ci yoon wu njëkk waaye dañoo mujjoon bàyyi ba defee ni mbir mi dafa am lu si nekk waaye bi ñu teewee formation yi ba mu jeex dañoo wax ne ay la yeween ñoom danañ bokkaat ndax gis naa ni kon rek li leen gaaroon euh, ci ci ci xañ na ci seen bopp la te itam waxuñu leen ko pour imposer leen ko dañ leen a ay règle ñoo xam ne nii nii lañu ñu war a bindee mu leer ci seen bopp ndax xamu nit ki moom heure boo xam ne yaa ngi wax ak moom wax ko loo xam xel mën na koo jàpp génne nga si lépp luy ay bakkan bu fekkee nit ku ku ku honnête la ku sincère dana bàyyi la mu jàppoon dem yokki xam-xam waaw tey loolu gis nga ñëw ñoom ci wàllu rasmu jawharul munasam Serigne Saliou doon ko leeral ñu dem ci dabt jël mawridu samaan bu imaam xarras moom itam euh, sëñ Saam euh, ñëw si ci anam gu gu gu gu yéeme lool gu jotale bu neppee man ma ñëw def si ñoom ay ay tànn xat seen ay dars mu amaat tam loo xam ne léeg ñii bind danañ ko laaj di wax ne est-ce que kii bind aw kayitam di bokk euh, kayit yu muy déposé war na am ay couleur wala est-ce que warul am couleur waaye foofu la gën a baax mooy nga sàmmonte ak ak couleur ndax mbind mi mën naa rafet lool waaye man ngaa yem ak nit itam yéen ñaan ñëpp ngeen rafetle moom bu matalee charte yi moom day jàll yow doo jàll ndax kayit yu ngay duggee moom mën naa mën na mën naa rafet waaye soo manee respecté couleur yi nga respecté ko bari na si ñoom dañuy wax ni dañuy wax ni waqaf yi ni mu jafee ci alxuraan ak diggante li ñuy wax ay xumus ak ay enchère yooyu itam dañ leen a wax ni ñaare du baare candidat bi waaye ki ko respecté nag xam ko bu ngeen tolloo mën na laa raw nga xam ne kon day mel ni gë ginnaawaluñ ko jafe gum jafe xañ na diisaluñ ko lool waaye nag ki ko respecte man naa euh, jiitu ki nga xam ne respecte euh, respecté wu ko yooyu day nekk yoo xam dafay aaje di di di di maam di bàyyi xel li ñu bind tam sëñ bi wax na ko daanaka lu toll si ay trente cinq lignes ci yenn téere yi nga xam ñëpp ñoo koy tollale jamono bi ngay toogee rek ngay xam ne fii ngay tàmbalee fii ngay yem ku si dul ñoo ñi xam ñoo seq liggéey bi lu si bari mën na laa bañ a euh, leer bind nag ni nga ko waxee dafa am cosaan ci ci ci ci ci ci ci ci ci lislaam ñoom ñaar ñoo ñoo ànd biñ koy def itam ñu doon ko def si ay jamono yu yu metti yoo xam ne xañ na jumtukaay yombul woon big yombul kayit yombul ñu di ko def si ay xeer di ko def si ay ay faari giléem ay cari tàndarma nga xam loolu tey boo si dajale woon ab ab kaamil gàddu ko lu jafelee doon waaye teewut ànd ak loolu lépp moom ñu ngi koy mokkal euh, di ko di ko di ko bind yonent bi alayhi salaam amoon ay bindkat yoo xam ne bu aay ñëwee mu leen bind leen ko bu nepp mu leen tëg leen ko barab sàngam nga gis ni kon biñ ba yëf yi nar a jaxasoo itam fu ne ci ak tënk rek fu ne alxuraan dafa jógee si la Seydina Usmaan nag am taxawaay bu bu bu bu rafet boobu xool li nga xam ne bindoon nañu ko si jamono yonte bi alayhi salaatu salaam mu wut ab commission ñu coppi téere boobu tasaare ko nga xam loolu mooy li ñu tudd rasmul euh, rasmul usmaani nga xam ne day loo xam ni euh, foo ko fekk ñoom naa dañuy taqaloo ndax gis nga alxuraan bu demee ba maam awwalu suuratin la doon nusuul xul suuratul alaq yaa xalili wa baadaha alqalam gis nga alxuraan ñaari saar yi njëkk a wàcc si alxuraan benn bi xira jàng lay tegtale waaye beneen bi bind lay tegtale kon day nekk ñaari biir yoo xam ne dafay dafay tëkkaloo xam nga lu mel ne xare badar daana am ay prison yoo xam bu ñu leen jàppee li tax ñu libéré leen mooy da ngay mën a jàngal nangam si ay saxaw bañ mën a bind ñu libéré la kon yonent bi saa sam daa fayal ay nit eh, ñu di ko ñu di ko ñu di ñuy dem di jàngi bind Eh, baaxuk alaaj Sëriñ Seck ak Cheikh Amadou Fadil ak mboolem ñi xam ñoo ànd ñoom liggéey bi bëgg delloo si waat bind di si joxe ay neexal loolu dañu xam liggéey bu am cëslaay la si ci diine ndax ku xam alxuraan ñun daanañ bind ay kaamil danga bind ay kaamil te yàlla tax nga dem jébbal ko ak kilifa soit mu ñaanal la loolu dara gënu ko rëy wala mu yëkkati vingt mille neexale la ko nga yëg ne yow daal li nga def am na solo waaye kaay bind lu matul ma jox la juróom-ñaari million ak genn wàll ku ne xam ne lool liggéeyal liggéeyal liggéeyal lislaam la waaye xam gum xam ni itam bind dafay téye dafay téye alxuraan nit ki mën na ko mokkal man koo tari waaye liy tax nag mu am place si sa si sa sa xol dëgg dëkk fa nam fa war a dëkke ñaar daan laaj bind daan laaj beqi dana laaj daan laaj yenn yenn yenn yenn taxawaay di la sant bu a baax a baax ci leeral. xam naa fi ma ci kiiram sëñ maam sëñ maam sëñ maam wax na ko te si Moustapha Diop Ndar bind ko comme noonu ñu ko binde woon ay téere yóbbu ko ci sud bi noonu lañ ko defee itam si yeneen daara yu bare baree baree bare xam daara yu bare boo demee da nga fa fekk ay base fekk fa ay jusu amma xale yi di si jàng bind bari na ay daara yu internat fii si Dakar yoo xam ne xale yi dañuy bind mbind mu rafet mm-hmm. waaye boo fa demee foofu la ñuy xool euh, di bind te noonu ñu ko defee lu xaw a jege junni si ay téere itam def nañ ko si complexe Ahmadul Xadim bi si Touba. tey tey waaw tey ñu ngi xalaat ne itam liggéey bii nga am jus yaasin bu àggee itam incha allah ñu gën a renforcer waat loolu. lépp rek mooy jubluwaay bi mooy ñaar yi rek di taxaloo. alxuraan fu ñu ko jàngee njàng mu rafet. man ko bind mbind mu bind mbind mbind mbind mu rafet. ñu xam daal liggéey la boo xam ne eh, ñu mboolem ñu ko seq itam li ñuy wax al amaan rek lan ci lan lan ci dawal maanaam diggante seen borom lan ci lan ci xool. du ñu baare kenn te teg ko ci ci ci loo xam ne ak yaama neex la du ñu jàllale kenn itam teg ko ci yaama neex la maam ay norme la ñuy teg yoo xam ne kun gis ne matal nga ko ci wàll gépp moom ala kulli xaal ak foo mën a nekk moom yow yaay yaay jàll soo ko manqué la itam ak foo mën nekk sam xamal ne moom amu sañ-sañ pour dem ci ci ci kanam di siyaar bu baax nag suñu Xaadim Njaay mi nga xam ne moo jiite commission scientifique te waroon a toog Euh, toogaay toogaay bii di siyaar tam mbooleem ñi nga xam ñooy liggéey ci biir euh, commission yaatal euh, mbindum alxuraan karim jërëjëf sëriñ Mbacke Sourang ci leeral yi am solo yooyu jëm ci comité scientifique bi muy lu ama am solo ndax mbir boo ci bokk war nga xam nu may def ba bokk ca ak fu may jaarit ba bokk ca loolu am na solo di nuyu baax alaaji Dame ture bëgg mburu di ko ñaanal di di ko jaale gorom boobu génne àddina yàlla na ko suñu borom xaral àjjana ci barke alxuraanul karim ak mbooleem ñam fekk barsax yàlla leen yàlla yërëm te xare leen àjjana ñu ngi leen koy jaal alaaji daam ak say mbokk yëpp yàlla mi am yërmande yàlla leen yàlla yërëm ci barki alxuraanu karim xam naa kon ñu def euh, tour table rek kàddu yu mujj yi Cheikh Mamadou Fadel ñu ngi jëm ci concours bi suba la tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ñu war a def appel candidature yi képp ku bëgg a bokk ci euh, ci lañ lay woowee nga bokk ci joxe adresse itam fépp foo xam ne barabu C3S ma nga fa ci Sénégal yow mi seen daara bi bëgg a bokk boo ko bindee xët bi nga war a bind def ci sa adresse sa tur ak sa sant boo ko fa déposé kuréel gi dinañ ci jot boo ko mënta déposé foofu itam raabita bi nga xam ne moo tënk jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal ak fédération bi foo ko fa déposé rek def ci sa adresse ak sa tur ak sa tur ak sa sant incha allah kuréel gi dinañ ci jot sëñ Fallou dara ñu yëkkati jotaay bi sa kàddu gu mujj lan lay doon. Euh, kàddu yu mujj moom mooy kàddu yi sant rek sant gi euh, di sant. ñii taxaw liggéey bi ndax liggéey bi kenn ku ne xam nga ne jafe na diis na te ñoom ñu koy def wax dëgg ñoom dafa mel ni yëguñ loolu kon nag ak ak cofeel lañ ci am muy sëñ Xaadim ñu ko mi ci bopp bi ak sëñ Moustapha su ma leen tuddee rek damay na damay tudd naa ñëpp ak sëñ Mbàkke Saloum mi fi ne ñoo ngi jotte suñu sant bu jóge ci sëriñ di leen sant bu baax ndax dafa mel liggéey bi moom moom képp mooy si seen liggéey te kenn ku la nga la nga yor ci sa daara euh, diis na gann waaye fu ñu ne liggéey bi ëjë rek ñu ne ñu war a jóg ñu ne Dakar bu fekkee Dakar ñu koy defee Touba tey mel Touba lañ nekk ñu ne euh, Touba bu ñu koy defee Dakar tey mel Dakar lañ nekk si Moustapha mii ñun ñi moo ñu fi jiitu ñu ñu jógee euh, Dakar loolu mooy wone cofeel gi kon nag ñu ngeen di jotali sama cant xam naa loolu moom boobu leen ci da da ànd ak seen liggéey rek ñu boole ko moom yanoo ko ni ñëw na seen liggéey yaakaar ne moom na lool na lool war a doxee rek nii la war a kon nag ñu ne nii sant cant gu wér gu jóge ci sëriñ ñëw ci yéen di sant tam eh, gone yi ne ci eh, société bi muy eh, daam ñu ngi koy jàll gorom boobu soxna euh, ñu ngi ko ñu ngi koy jaal bu baax a baax te di koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana moom ak Mouhamadan mii ak sëñ Maamun ñoom ñoo xam fi teewal waa suuf bi ñëpp yëpp ndax ñoom ku teew rek teewal nga ñëpp ndax ñëpp mu ñoo teewoon waaye seen teewaay mooy teewaay société bépp ndax bu ñaan yaata mbind alxuraan di ñaan c 3 kon nag ñoom ñi teew ñoo teewal société bi yëpp kon ñoo te ñoo leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ñu dugg ci liggéey bi amee ci lu kawe suñ jortu nañ ko amee woon yaasin boobu ñuy wax tam ñoo ngi ñaan yàlla mu defal nu ndam bañ mën ko eh, mu noppi sell na fi jàll yi fi jaar selle woon bañ mën koo jébbal nit ñi ba Sénégal kenn ko ne mën caa jot waaw moom itam ci liggéey bi bi ko ci biñ biñ dalloo ci la bokk kon ñoo ngi ñaan yàlla mu yàgg ak jàmm ba daara yëpp mën cee jot jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadel Seck waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf alaaji fàllu ci leeral yu am solo yooyu ak ñaan yu am solo yooyu yàlla ko borom nangu ñu jox sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne mooy wax ci turu waaye wax ci nga xam ne mooy communication sëñ Mahmoudan laataa ñu yëkkati jotaay bi yan kàddu ngay ngay tëjee incha allah. waaw jërëjëf sëñ Omar jërëjëf mu mel ne kàddu yi moom la ci appoon solo lépp ak euh, kilifa yi wax nañ ko leeral nañ ko xanaa di euh, jeexal rek suñu kàddu ci ñi nga xam ne xaj na. Euh, danoo nekk ci côté sud boobu ñu tudd sànq euh, képp koo xam ne bëgg na ci daal ay ay yeneen leeral yu gën a yaatu ak foo mën a nekk ci région yooyu di euh, Tamba Ziguinchor Kolda Sédhiou ak ak Kédougou Matam ak Matam nga mën a jokkoo rek suñu Ousmane Dia mi nga xam ne moom laa tudd sànq mi coordonné foofu ci 77 700 784 15 46 15 46 ñi comme ni muy jàllee si écran bi rek euh, léegi ñi nga xam ne nag dañoo nekk au niveau national yëpp koo xam ne bëgg nga si beneen information moom tamit mën na euh, jokkoo ak Serigne Saliou Silla wala Serigne Abdoul Koudous wala Serigne euh, Abdou sekk ci numéro yi di 77 750 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 ñuy sant ñin bokkaloon jotaay bi yëpp di rafetlu di sant bu baax itam technicien bi di Moustapha Sarr ci ak farloom ak lépp rek di ko ñaanal suñu borom yokk ko moom tamit ndax liggéey bu ñu mës a dugg rek moom ak sëñ Mourtala Gaye ak sëñ sëriñ Abdul Quddous ak sëriñ Cheikh Gaye si wàllum communication liggéey bu ñu dugg rek boobu ba léegi ñu koy ànd ak ñun day yell ñoom comme que duñ feeñ ci caméra yi tamit ci image yi ñu leen di jagleel ab sant ak ngërëm euh, di sant bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi gërëm itam sëriñ Mamoun Fall di jàmbaar ci liggéey bi nga xam ne luñ soxla ci archive rek moo ñu koy jox nga xam ne dara du ko échappé fu ñu toll xam na ko lu ñu passé itam bind na ko denc ngir buñ ko soxlaa Cheikh Modou Mamoun ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di jox sëriñ Moustapha Diop Ndar docteur sëriñ Moustapha laataa ñu yëkkati jotaay bi yan kàddu ngay ngay tàggatoo. waaw xanaa di sant yàlla bu baax mi nga xam ne ci taw fii xam moo ñu dugal ñu yëngu ci alxuraan diggante jàng ak jàngaleeg bind. Euh, di santit El Hadj Serigne ak Cheikh Fallou mi ak njaboot gi yëpp nga xam ne ñoom it suñ borom euh, xiirtan la leen ci wii waar ñu yaatal ko ba dugal nu ci euh, di mujj cant gi rek cant gu bàyyi ko ci mujamma Cheikh Ahmad Khadim muy daara si muntaxaaju mag ji ndax C3S ñëw na fa ak délégation indi fa téere alquran ni ñu ko waxee léegi. Euh, macha allah ci mbindum mbindum concours bi euh, lim bu takku euh, alhamdulilah ñu ngi koy jëriñoo booba suñu Ahmad Badawi mi nga xam ne mooy président complexe mi ngi teew ak ñu bari ci jëwriñ jëwriñu daara ja kon loolu yi leen ciy sant bu baax ndax loolu ak jàppale la ndax alxuraan moom fu ñu koy jàngee fu nekk du ñu doyle téere duñu doy la ay téere kon lim ba ngeen fa indi ñoom am nañ ci cant ñaan suñu borom it dolli kër gi kattan te àggale yéeneem ci waar wii eh, nun ñëpp it defal nu dimbal ba ku nekk li nga ci yéene ci alxuraan dem ci kaw ci kanam suñu borom yàlla na ko def teñ fekki ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Moustapha Diop Ndar nga xam ne mooy président jury bi ci concours bi nga xam ne compagnie Serigne Seck taxawal nañ ko tudd yaatal mbindum alxuraan ñu ñëw ci sëriñ Mbacke Sourang moom it teewal fi ñi nga xam ne moom mooy comité scientifique bi ci njiital sëriñ imam Khadim Ndiaye sëriñ Mbacke laataa ñu yëkkati jotaay bi yan kàddu ngay tàggatoo. waaw xanaa fi ñuy jeexale di di soññ suñu bopp waaye di soññ tam mboolem ñi xam ne dañuy yëngatu si alquran euh, ñu ndax li ñu baaxoo di dal moom mooy ñaare heure boo toogee di jàng rek li sëpp dangay euh, bàyyi sàkku xam-xam te dañuy wax ne ab jàngalekat moom heure bu. noppee bàyyee jàng rek bàyyi ba mu bàyyee jàngale ndax itam man boo bàyyee jàng rek man ngaa dem ba ñu ngay jàngal euh, raw la kon ni nga mokkal alxuraan mën a bexi fexeel ba yokk sa xam-xam ci wàllu rasmu waaye fexeel ba yokk sa xam-xam ci wàllu wàllu dabt ndax xam-xam euh, du moom moom amul fu muy yem min al mahd ilal ilal lahd te it dëgg-dëgg nag jot na ndax boo xoolee fi ne liggéey bi fi mag ñi bàyyi woon ci góorgóorlu ba indi ay boole góorlu ba teg fi alxuraan day mel ni yokk gi mi ngi xaw a mi ngi xaw a des si siyaar bu baax sëñ Moustapha moom si góorgóor mi ngi si def effort ba génn ay téere ngir xale di mën a jàng parce que loolu kenn ku ne war na ko war na ko def côté bi nga manee rek nga def te bañ see te bañ see bañ see bañ see xaar dara parce que ñaari heure bu Pastef bi nekk rek volonté am wa baabulaahi man lam yakku murtaja maanaam dabtu yi nii maanaam rasmu mawridu zaman yi nii jàng ak jawharul munazam yi nii jàng ak yëpp ay nit a volonté woon rek euh, def ko man jàpp naa ne engagement boobu euh, bu fi amee ba léegi rek téere yi mën na fee taxaw kon nag xanaa ku ku taalifut nag mën a war a mën a fexe nag ba leen taalif nag nga xam ko loolu nag loolu moom loolu moom ndimbal kon ñu ngi soññiwaat euh, gaa yi bokk si concours bi yëpp ñuy ay jàmbaar nag ndax ku mën a toog bind rubu ba mu jeex te yàqoo ko ak pression bi ni muy méttee kooku moom macha allah am na cër ci alxuraan waaye nag yokk capacité yi eh, ak yokk xam-xam bi dafay am solo sérité bi nga xam digg nañ leen ko itam eh, muy yaasin banaas yi loolu moo xam dañ si soññi gaa yi ko seq rek ñoo xam ne digg nañ gaa yi ab sérité hmm. comme ñoo leen ko digg nag. macha allah <laughs> ñu jeexal. waaw ba ñu jeexal nelaw yi rek te fexe ba euh, le jour rek ñu leen sëriñ baa ngi nii incha allah yal na yàlla mottali te barkeel wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. wa rahmatulah wa barakaatu yal na àgg ak jàmm te ngeen bañ ko wutee. waaw lii sëriñ Mbacke Sorong wax ci formation yi lu am solo damay wax suñ daara ni leen yéenay jàngale rabbi zidni ilman gannaaw yéen a koy jàngale nag yéen moom seen formation amul fu mu yem. formation continuer formation continue moom këru liggéeyukaay yëpp koy am ay rawat na kon kuy liggéey ci téere bi te liggéey ci ay gone euh, euh, formation bi ñu doon def Touba defoon ko ci ni nga ko waxee ci xam-xamu rasmu ak dabt ñu sukkandiku woon jawharul munazzam ak mawridu zamaan mu ñaari téere yoo xam ne ku ko jàng te dégg ko da nga maîtriser xam-xamu rasmu bu wér da nga maîtriser xam-xamu dabt bu wér xam-xamu rasmu nag Euh, sax na fi ba sax ñi nga xam ne jànguñu téere yi suñu bindee alxuraan mu wér waaye ko suñu mbàkki dafa wax dafa am solo mbir boo ko xamee ci pratique lay tax nga mën koo défendre da nga koy xam ci théorie te gannaaw ñu ngi jàng ay xam-xam nañ ci jàngaale xam-xam boobu su ko defee li ñuy bind muy wér ñu xamit lenn luñ ana fuñ ko teg ba bu ëllëgee si mbir bu ca défendre waree ñu war ko ñu ñu def ko xam-xamu dabt nag moom it naka noonu ñu ngi koy bind muy wér waaye moom moo moo gën a néew tasaaroo moom dabt moo gën a néew tasaaroo dabt nag mooy bu yax bi jàllee li ci des lépp dabt la tudd sadda yaag maska yaag soq yaag euh, lépp aayaat yaag lépp wax fa yëpp ci dabt la dugg kooku nag day xam-xam boo xam dafa laaj ñu delloo si ko ñu delloosi ko tey nag wàcce ko ci terrain bi waaye surtout sëñ daara yi nga xam ne macha allah ñu ngi ci ndaw te fas yéene téere bi ñu am yéene yëkkati ko ca kaw gàttañ wuñ benn yoon ci wàllu qiraat te mooy xeetu riwaayaatu quraan yi ñu ngi koy jàng bu baax di ci am ijeesa waaye nañ ci dugal bu baax léegi nag jàng rasmu waaye nag te jàng dabt ba nga xam ne ni ñuy jàngee mu biir cëng ak riwaaya bu ñu mën a jël daañ ko bind mu wér ci ci côté rasm ak côté dapp euh, alhamdulilah rabbil alamin C3S organisé woon na lu ci daaw jéeg formation ci wàllu rasmu ñu jëloon daanaka genn wàllu téereb euh, Jawharatul Munazzam fabaat nañ ko ren ji weer weesu defaat nañ formation bu mel noonu ci ñaari xam-xam yooyu dañoo bëgg mu continuer dañu bëgg mu continuer ba sëñ daara yi ci terrain bi gën a miin xam-xam yooyu incha allah dana leen gën a dimbale ndax concours bi it bi muy doog a jóg ñu ngi ko tabax rek nattukaay yi ñu nattee euh, liggéey bi ñu ngi ko tëral ci li fi nekk ci xam-xam ne ci terrain bi waaye biñ seetee gis nañ ne am na lu ci manqué waaye téere yi buñ koy jàng formation yi di continuer dañ bëgg yit ñii bokk ci konkuur bi seen niveau di gën a yëkkatiku ci wàllu rasm ak ci wàllu dëpp dañuy dem ba nga xam nag nattukaay yi di su ko def nattukaayu aada nii waaye nag nattukaayu xam-xam lañ koy def nga xam ne kii def concours lu mu def lu ne dañ koy natt ci téere lañ wax ndax moom la def wala dafa juyee ak moom te su boobaa nag loola moom dafay laaj kon euh, ku ci bëgg a bokk nga yokk sa xam-xam euh, ni ma koy wax gannaaw ñun ñoo jàngale rabbi zidni ilman sama borom dolli ma xam-xam kon nun waruñu taxawlu waxtu nekk war nañuy wax loolu suñu borom dolli ñu xam-xam te loolu mooy di dem ci formation yi nga xam ne ñu ngi koy organiser di gërëm bu baax waa C3S ak ustaas yu baax yi nga xam ne ñoo koy euh, taxawee euh, jërë ngeen jëf. jërëjëf docteur mustafa Diop Ndar di borom xam-xam ngeen miin ko yaakaar naa sëñ daara yi miin nañ ko ci formation yi ak yu baree baree bari. di leen ñaanal jàmm di leen sant di leen gërëm yéen ñi doon topp fii ci c waaye fii ci yaatal mbindum alxuraanul karim lii mooy jotaay bi nga xam ne moom lañ leen amaloon mu jëm ci concours bi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 لست بنعمة ربك بمجنون